maa ngi leen di nuyu nuyu jullit bi nuyu mbokk jullitam di leen nuyu nuyu taalibe buy nuyu ay mbokk taalibeem di jëfandikoo baatu asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala julli ci xayrul mursalina sallallahu alayhi wa bi ak daje bi yëpp nekk di jëmmi yàlla jëmmi sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa jëmmi cheikh ahmadou bamba xaadimu rasul di bëgg ci daje bi di am kontante mu di ay daje yoo xam ne mënta ñàkk ci dund képp ku bëgg a texe texe ëllëg gu sax bi nga yoree kawar gu ñuul ak bi nga yoree kawar gu weex suñ boroom bëgg na ku ko jaamu waaye borom kawar gu ñuul gu ko jaamu moo ko gënal bañ na ku ko moy waaye borom dëgg jaaw bu koy moy la gën a bañ loolu àgg na ci sallallahu alayhi wa sallam wax ñu ne suñ borom dana puukarewoo waxambaane wu ragal yàlla ku di ko jaamu suñ borom dana ko xëllantoo malaayika yi mu dellu wax ñu ne juróom-ñaar ngi nii yoo xam ne ëllëg ba ker ñàkkee suñu borom dana leen jox keppaar fi ci njëkk muy imaam bu maandu ñaareel bi muy waxambaane wu formé ci jaamu yàlla ñetteel bi muy jëmm ju xolam aju ci jàkka ñeenteel bi mooy ñaar ñu bëggante ngir yàlla rek tax leen a bëggante bu ñu dajee moo leen tax daje bu ñu teqalikoo ca la ñuy teqalikoo juróomeel bi mooy góor gi ragal yàlla ba ndaw su taaru am daraja bokk ci famille bu mag woo ko ci boppam mu ne ko dama ragal yàlla duma la jege ki ci topp muy jëm mu jiit àgg ci bu dee sarxe ci loxom day jooram dana ko nëbb ba ab càmmooñam du ko yëg ci dem juróom ñaareel mooy ki ragal boroomam ba wéet ci ruq xalaat yàlla xalaat dee xalaat dekk xalaat ëllëg ba ay rongoñam ay bëtam taa ak rongoñ rongoñam yooyu taa day bokk ci li koy fegal mbugalum yàlla ëllëg liy soppeeku keppaat ëllëg keral ko keroog ba ker ñàkkee kon àdduna ni ko sëriñ Touba waxe ci téeréem boobu xikmatu Cheikh Ahmadou Bamba nee na adduniya misaalul axira wa suuq misaalu yowmil xiyaama sëriñ Touba nee na àdduna mooy misaalum alaxira bis penc mooy misaalum marché lu la réer ci alaxira xool ko ci àdduna lu la réer yowmal xiyaamati nee na xool ko ci marché ba nee na ki ne bërët jëm ci boroomam di wéy ci ndigali yàlla yi fii ci àdduna mi ngi mel ni ku yor xaalis jóg jëm ca marché ba ki ne bërët jëm ci boroomam fii ci àdduna ànd ak tere yi suñ boroom yi nee mi nit mi ngi mel ni waa ji xëy jëm ca marché ba te fas yéenee sàcc mu ne ki ne bërët jëm ci boroomam fii ci àdduna ci ay neen ak caaxaan mi ngi mel ni ki ne bërët jëm ca marché ba yore ay sagar yu xotteeku ak ab dóom ak am ñax nee na ku njëkk kee jublu ca marché ba yore weccat nee na bu àggee waa marché bi danañ ko kar am mbégte ki ci moom lool jox ko lu bëggoon nee na ku ñaareel ki jëm ci marché ba ngir fas yéene sàcc nee na balaa ngoon a jot nga dégg ko kaso ku ñetteel ki yore ay sagar jëm ci marché ba akub dóom akub ñax nee na kooka dàqu dañ koy dàq wëlbati ko bu Sëñ Tuubaa waxee loolu ba noppi dafa daal di jàng aayab alquran ba inna hadaynaahu sabila imma shakiran wa imma kafura kon nag ñun jullit ñu war a bàyyi xel bis bu mag buy ñëw ci suñu kanam bis boo xamee ni bii ak si na lu saful foofa saful dara lu neexul foofa neexul lu naqari foofa musta neex yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nañu waxtu wuñ suñ borom dajalee bindeef yi muy xin qul inal awalina wal axirina la majmuuna ila miqaati yawmin maalumin la ko tàmbalee ci aadama ba ci mujj juddu asrafil ëpp bugtu bi suuf si ne baj baj ne tàcc xar léeg-léeg nga gis bàmmeel boo xam ne juróom-ñaar fukk fay dekkee ndoo boo nee tëll li ko tàmbalee ci sa ndong ba ci sa wëq tànk lépp taq suuf nee na ñu dégg kàddu gu foor gu sore di woote tabdu go xamni gi kenn xamul fu muy bawoo di bàyyi koo ci biir ak ci bitti ci kaw ak ci suuf ya ayuha الناس inni qad أنصت lakum منذ خلقتكم ila yawmikum هذا yen doom aadama ba ma leen bindee ba tey dama ne won cell ngeen di wax rek tey nag yen ñëppay def cell man dong tey may wax ayuha nas inni qad ja'altu nasaban wa ja'altum nasaban fa wadaxtum nasabi wa rafaxtum nasabakum man de ba ma leen bindee damaa wutoon askan yéen ngeen dem wut askan ngeen sippi sama askan yëkkati seeni askan ndax man dama ne woon ak inna akramakum indallaahi atqaakum ki gën a ragal ki gën a ragal yàlla ci yéen mooy ki gën a tedd ngeen bañ yéen ngeen diw doomu diw moo gën a tedd diw moo ëppale alal kon moo gën a tedd bisub tey danaa sippi seen askan yëkkati sama askan ay nal mu teqoona ana ñi ma ragaloon ñooñu dajaloo ñu yëkkati leen aw raaya ñu nekk ca ron raaya wa nee na ñu tabbi aljana ci lu ñu leen di regleel menn mbir moom la sëñ di gan ba di ko ci téeréem boobu Majmahun Nuurayni fii Fawaa'idi Daarayni nee na inna li yawmil qiyaamati mi'atu alfi hawlin kullu waahidin minna ashaddu min maraaratil mawti alfa marra nee na bis penc nit ñi daañ fa tiit téeméeri junniy tiit benn tiit bu ci nekk moo gën a metti junniy sukkuraatu ndee te benn sukkuraatu ndee bu nekk mi ngi mel na ñuy cawandoo la téeméeri jaasi yu sarandoo sallallahu alayhi wa ñuy nettali ci addis bu limaam Abu Hurayra indi ci jamono yu njëkk ya góor goo xam ne gi judd na ba xëy bejjaaw bokk bi daas mos ta def lu neex yàlla mosu koo wax dal di woo ay doomam ni leen musiba am na la ma weddi woon lépp gëm naa ko tey xam naa ne yàlla am na te dee dikk na te musumaa defal yàlla dara kon bu ma demee fu ma jëm kaay leen ma jox leen pexe bu ma dee na ngeen ma lakk di ma lakk ba ma defu doom ngeen jëri ma ndax yàlla bañ maa jàpp ndax bu ma jàppee rek def ma mbir dana ma mbugal mbugal moo xam ne mosu koo mbugal kenn naka la faatu doom yi dal di gëm seen ndigali way jur loolu dal di koy defal noonu mu waxoon biñ defee noonu suñ borom daal di gëdd suuf ne ko fu ab atome nekkoon dajaleel ma ko atome yëpp suuf ne baj baj atome yëpp dajaloo jëmm ji na ñokkee taxaw ci kanamu suñ borom waaw maa xamalaka ala ma sanata yow lii nga def lu la ci xiir xasaytuka yaa rabbi dama laa ragaloon rek lii laa doon bañ moo tax ma def ko ragal ma dong nga taxoon nga def ko mu ne ko waaw mu ne ko wallaahi jéggal naa la kon nga xam ne suñ borom yërmandeem xel mënu koo takk nit dana ne ñokket jëm ci jëf ji na bon ci jëf yi suñ borom soppil ko ko ak texeem nit jóg jàpp ne la muy def li gën a rafet suñ boroom sël boo ko ca mu yàqule ca loolu boo jàngee masaalikul jinaan ba gis mbirum balaam ibnu bao